nee na di tàmbalee nuyoo bi ci ki nga xamante ni mooy boroom kër gi di alxalifatul am li tariqa at tijaniya di sëriñ Babacar Sy Mansour di ko ñaanal mu yàgg fi lool ñaanal ko neena nee mu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér yàgg taxawu njabootug maamam gi ñu yàgg toppit nag ci ginnaawam nee na di nuyu rakkam yépp nee na buñ ci tuddee sëriñ Pape Malick si moom mi nga xam ni mooy xalifa sëriñ baaba kër si tey nee di nuyu Cheikh Alxaaji Malick si mi nga xam ni mooy borom kër gi Cheikh Alxaaji Malick mu Cheikh Alxaaji Abdou Aziz Sy Dabakh moom itam nee na mu ngi koy nuyu bu baax a baax nee na di ko beral ngërëm ak cant di ko ñaanal wér ak kàttan ba mu yàgg a taxawee liggéeyu waajuram bii di nuyu rakkam yu tedd yi fi teew yépp nee na buñ ci nuyoo cheikh Mouhamadul Mansour moom cheikh Alhaji Abdou Aziz Sy Dabakh mi nga xam ne moo fi teewal cheikh Alhaji Malick Sy Maodo. teewal fi sëriñ Babacar Sy alxalifa Khalifa teewal fi jabootu maam Cheikh Al Hadj yépp nee na mu ngi koy nuyu moom itam di ko sant bu baax di ko gërëm ngir cofeelam ak taxawaayam ak kàddu yu rafet yi nga xamante ni jotal na ko fi te yàgg di ko def nee na li ci mujj ci màggalu Tuubaa gi bi ko sëriñ Babacar Sy alxalifa Khalifa yónnee nee na fekk ko mu nekk ci biir néegu sëriñ bi te yëgoowuñu ndax moom daf ko jiitu bi mu jottalee ay kàddoom ba noppi muy kàddu yu rafet yu mu fa jottali jëme ko ci jëmbam ji wax ko Cheikh Mouhamadul Muntaka sëriñ bi woolu ko ngir seereel kàddu yooyu nee na wallaay njabootu Cheikh Al Hadj Malick gépp loolu rek moo nekk ci ñoom ca seen wayjur sëriñ Moustapha Diatara dafa wax léegi ni nee na dafa wax ni daal moom dafa sopp Cheikh El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh nee na mu ni ko sëriñ bi li nga wax am na solo waaye ne la wér ni du yow rek a ko sopp waaye Sénégal yépp a sopp maam Dabakh waaye njabootam gi loolu rek la nit ñi di yëg ci ñoom koo ci xool rek mu jox la Cheikh El Hadj Abdou Sy Dabakh cofeel gi ñu amoon ci seen baay rek la ñëpp am ci ñoom waay juru sëriñ Modou Bousso sëriñ Mamour Bousso bii way juram di sëriñ Modou Bousso bi muy martial maam ju baax ci maam Cheikhul Khadim ba agsi ci ay njabootam dafa wax ni nee na dafa wax ni ñooñu dañu mel ni ay biddéew koo ci taseel ci ñoom ah boobu de mënuma ko firi nee na koo ci gis rek nee na ñoom ñëpp ay biddéew lañ koo ci gis rek defe ni kookoo gën ka ca des nee na noonu la ñu mel nee na koo ci gis rek nee na yaakaar ni moo gën a baax sa morom macha allah nee na di beral nuyoo nag Serigne Sidi Ahmed si moom Cheikh Al Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh mi nga xam ni tey jii. nee na dikkam gi moom mooy ki ko waral muy loo xam ni nag yàlla mu ngi koy soog a tudd waaye at mu jot mu waaj ngir bëggoon a ñëw fekk si ko ci bisam bii ndax nee na si Sidi Ahmed mii day jëmm ju baax nee na doomi Cheikh Al Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh nee na boo waxee ni dafa baax nee na dafay mel ni sax loola xas la. ndax loolu yéemewul warul yéeme ñu ni kii doomu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Sy la mu baax nee na soo doonee dafa baax sax dafa mel ni loolu xas la nee na waaye moom si sëriñ Sidi Ahmed mii baaxam nee na dafa sottiku nee na nag bay liddi ko nee na benn kilifaam bu baax di magam ju baax nee na dafa am kenn ci jaamam yi ku mu daan tooñ muy sëñ moor mu sa soxna may al kubra daf ko daan wax naan sa baax gi nee na ko sa mbaax gi daal dafa ëpp bay liddiku nee na sëriñ Sidi Ahmed macha allah sëriñ Mahamadul Bachir nee na sa baax gi nee na da cay teg rek la sëriñ ba waxoon rek la cay tegaat nee na daal du lore wallaay sa kàddu mënu koo lor nee na mu ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax kat yaa ngi def li nga war a def ci jottali bokk gi ci na mu gën a rafete ndax suñ ngeen dajee ak xew-xew bu mën a am nee na lu mu xat-xat-xat te nee na xam na ni say responsabilité bari na lool nee na waaye dangay ngay bàyyi lépp ñëw kon nee na lii ñu def macha allah tey nee na wax dëgg yàlla dañuy jéem rek fay la sa bor nee na waaye yëg nañu ni mënuñu ko sax fay nee ndax ngëneel moom mooy ka jëkkee rek ka jëkkee daal moom moom ngëneel la jëkk-jëkkaat nee na yow yaa jëkk jëkkaat kon nag day ñaan rek suñu boroom dimbali leen ba kóllëre gi ak bokk gi